dafa jàll ci yaari loxo yi ne ko si yaari loxo fexeel ba bul ci laal dara loo xam ne yoon mayu nga laal ko ni jigéen joo xam ne jaabur la ci yow mën ngeen sëy ci yoon araamu la sañ ngaa xool kanam nga ak téng ya bu fekkee ne amoo ca xool ga jubloo bànneexu ragaloo ci dem fitna waaye nag laal ga moom sañoo ko laal ci genn wet doo saña joxante ak mom loxo ba dara lu koy nuru batay alali julit de ko soy alali jamur mom bu fekki amo ci digal sori ko bu laal mukk alali julit ba alali jamur jo xamne rek wolé ci anam gu dagan mu ne ko it na la ne lepp lu ñu ne ko wax ci rek ba tey sañesu koo bind ci loxo da nga moytoo bind ci sa loxo loo xam ne sañesu koo wax ci aw làmmiñ